alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah 16. yaatal leen ci arrière leen wala ndeyjoor bi wala càmmoñ bi andi andi sefi kon année bi am na ku ne mi ngi jot gis nañ ci mbokk yi nga xam ne ñoom ñëpp incha allah yéen ñi yéen ñi yor seen jóg jóg Thank you. may leen borom sees yi ñu ñëw alhamdulillah Moussa Moussa dama dolli. si la bàyyi la ñu am espace mu gën a yaatu yaa gën a yaatu. gën a yaatu. Musa Musa Musa Musa ñi ci moom ñoo war a waaw waaw Salat. Salat. Moussa Moussa wax nit ñi ñu ubbi nii bu baax da ngeen ubbeeku nii ñu mën kaa gisee woon fii moom bopp ñee penk bi nii ma penk bi mu ne ngeen def nii Thank you. bàyyi leen bàyyi leen ñu ci dëgg yàlla foofu la ci boobu la voilà yéen ci kanam bàyyi ñu mu gën a yaatu tuuti may sëriñ si fuñ toog bàyyi leen yéen ñi gën a yaatu yéen ñi a yaatu ak ci kanam yéen ñëpp nañu ubbi géew bi mu gën a yaatu

ubbeeku leen ubbeeku leen ndeyjoor ak càmmoñ ñëpp ubbeeku leen ndax yow barab bi yaatu Moussa ah, la nga sëñ Makilo bu ndaw ñu ne nga ñëw fii Makilo mu ndaw ñu ne nga ñëw fii nuyu mbooloo mi imaam Mouhamad Gueye moo leen di nuyu mu ne mu ngi jéggulu ci sang yii toog dafa mënta mu ne naam dafa mënta ñàkk rek mu ne waaye fii su fi ñii kat e def leen ndànk waay amatuma itam mu ne boobu moom it amatut dem. mu ne waaye kii dem. kenn la ci man. kenn la ci moom. benn bakkan la. xaritam la benn bakkan. ay xat. ay xat. mosu ñoo boo xam ne bokkuñ yendu. mosu ñoo xam benn bés boo xam ne bokkuñ yendu. bokk fanaan. wala ñu bokk fanaan. wala ñu bokk nekk fépp. wala ñu bokk nekk fépp. fuñ mës a nekk. fuñ mës moom moom ñoo bokk ne. sama xarit la. xaritam la. la. mu ne waaye li ma ci moom. yàlla bëgg yàlla bëgg yonantu bi bëgg yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg Seexu Tijaan bëgg Seex Ahmad Tijaan radiyallahu bëgg Mawlaana Cheikh Ibrahim bëgg Mawlaana Cheikh Ibrahim radiyallahu di xëy ci ab toolam di xëy ci toolam di ci guddee di ci guddee di ci teel di ci teel di ci gonnal di ci gonnal di ci mindulu ay harakaatam ay harakaatam lépp Mawlaana Cheikh la li ciy firnde li ciy firnde mooy boo demee këram mooy boo demee këram Cheikh Ibrahim rek ngay dégg Cheikh Ibrahim rek ngay dégg wala Baye Macky wala njabootu Cheikh Ibrahima wala njabootu Cheikh Ibrahima wala njabootu Baye Macky wala njabootu Baye Macky jaamu yàlla bu baax jaamu yàlla bu baax la jaamu yàlla bu sell jaamu yàlla bu sell jaamu yàlla bu tabe jaamu yàlla bu tabe boo xam ne nii boo xam ne bii bu amut ay milliards ah boo amoon ay milliards ak bu amut bu ko amut dundale ak dimbale kumtane ak dimbale kumtane looloo ko ko ñàkk looloo ko ci moom ñëw ci moom tawatal ko fuufu responsabilité ëpp la dépasse ëpp la dépasse nga ñëw ne ko awma dépasse nga a a a a bay makki ñu ko jaale waa pay bi yëpp ko jaale ñaanal yàlla ñu na ko yàlla teeru ko daf maa yónnee ay audio mu ne ko yónnee ay audio ñaari fan yii mujj ci koor gi. di ma wan ma ko dégloo. ba mu ko dégloo. maak Sulay Caam ki may ko ànd ak moom mu di ma dawalal. mook Sulay Caam mi koy kondiral. mu ne ma kii kan la. mu ne ko kii kan la. ma ne ko kii mu ne ko Oustaz Keba Lo ne Cheikh Ibrahima Niass amul morom. lii yëpp ci barke Cheikh Ibrahima ab taalibeem di wax. ab taalibeem di wax. barke rek moo ko mën a may loolu barke rek ko mën a may. Cheikh Ibrahima rek la ko yàlla may. def na lantanaa lu leeral ba xam mu ne leeral na ci lantanaa loolu loo xam ne. ci laa ko doon ndokkeel. ci la ko doon ndokkeel. biñ woree. biñ woree ca bés bu njëkk ba ca bés bu njëkk ba. waaye li ma wax. mu ne waaye li mu ko wax. mooy ñaanal ma yàlla. mooy ñaanal ma yàlla. tafsir bii bu yàggee. tafsir bii bu yàggee. addiye ji. addiye ji ak li ciy leer. ak li ciy leer. ak li ciy tuyaaba. ak li jox naa la ko addiye. yëpp naa ko addiye. ngir bëgg goo bëgg Mawlana Cheikh. ma ne ko. mu ne ko. maa la koy delloo mu ne ko maa ngi la koy delloo ndax man nu ma mel ndax man nu ma mel ci bëgg baay ci bëgg baay dama la naw ba naw ba roy la wallaahi laasim wallaahi laasim ku sell ku bëgg baay sell ku bëgg baay nga ku amul benn ku amul benn ki salaamaaleykum wa rahmatulah ngeen baal ko àq sëriñ si ok sëñ Omar Ndiaye mu ne salaamaaleykum qaaloo inna inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Makki. sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Makki. kenn ñàkkut yaa ñàkk. mu ne kenn ñàkkut yow mii yaa ñàkk. man maa ngi moo bokk benn ndey. mu ne moom ñoo bokk benn ndey. maa ngi wax jaami yàlla yi nga xam ne ci kanam jumaayi baay ji. mu ne mu ngi wax ak jaami yàlla yii nga xam ne ñu ngi ci kanam jumaayi baay ji radiyallaahu anhu. borom ngi ni tëdd. borom mbëggee la ngi nii tëdd. doy na ko yóbbal. doy na ko yóbbal. kan la bëgg. ana ku bëgg. cheikh Mouhamadul Makki cheikh Ibrahim Niass. cheikh Mouhamadul Makki Mawlana cheikh Ibrahim Niass. gis naa ko mu def moom loo xam ne ci biir eh, morgue bi. mu ne gis na mu def ak moom loo xam ne ci biir morgue bi. su fekkoon ne du yaakaar yi yaakaar li baay wax ci ci Madina ko fi des. mu ne bu duutoone yaakaar yiñ yaakaar di bàyyi wax ne ci biir mel ni nag ku fi def rawatina ñu suul la ci armeelam yii rawatina nag ñu suul la ci armeelam yii la ca bàyyi dale la ca bàyyi dale su ko cëddalee hudoon bu ko cëddalee hutoon gis naa Cheikh Mahamadul Makki def noo xam ne ci ci rawd bi mu ne gis na Cheikh Mahamadul Makki def ci rawd bi ci morgue bi ci morgue bi doy na ma sëkk mu ne doy na ko yaakaar sëkk wóor na mën a dana firi loxoom yi digganteem ak baay. mu ne wóor na ko ne dana firi loxoom yi digganteem ak baay. te buñ fàtte ne. mu ne te nag buñ fàtte ne. xidmakat piir a ngoog. xidmakat piir a ngoog. dama fanaan ak moom bët set. mu ne dafa fanaan ak moom bët set. mu kay def boppi neen. mu xëy def boppi neen. da fararari rek. di fararari rek. ma dab koog suma oto jotu ma ko. mu dab koog otoom jotu ko. ma téléphoné ko. mu téléphoné ko. mu ne ma kët sëriñ bi la ñuy bale ji. mu ne ko kët sëriñ bi la ñuy bale ji. Baay xam na lu wax ci xidma de. mu ne Baay de xam na lu wax ci xidma radiyallaahu anhu. Seydi Aliou Cissé dëggal ko. Baay Sëriñ Aliou Cissé dëggal ko. loolu doy nañu yaakaar. mu ne lool doo nañu yaakaar. li taxoon a jóg Maulana Cheikh Ibrahima mooy xol yi. mu ne li taxoon a jóg Maulana Cheikh Ibrahima mooy xol yi. portable yi yëpp. portable yi yëpp. piis yee tax ñu yore leen. piis yee tax ci la numéro yi ne. ci la numéro yi ne. ci la message yi ne. ci la message yi nekk. kuñ ci tàgge sa baay nga gëm. kuñ ci tàgge sa baay nga gëm ko. luñ ci yónnee nit nga jot ci. luñ ci yónnee nit nga jot ci. waaye bu piis génnee du jëriñati dara. waaye nag bu piis nekkul jëriñu dara. bàyyi nag dafa njëkk ci xol yi. mu ne bàyyi nag radiyallahu anhu dafa njëkk ci xol yi. rawatina xolob jëmm ji. rawatina nag xolob jëmm ji dem. xolam bi xéwén na. xolam bi xéwén na. lim doon ñaan it xam na ko. lim doon ñaan it xam na ko. mas na ma wax bés. mas na koo wax bés. 4 heures 24. mu ne 4 heures 24. man ak soxnaam ci biir néeg ñoo doon bokk tëdd. moom ak soxnaam ci biir néeg ñoo doon bokk tëdd. mu ne ma. mu ne ko. sëriñ bi lim foog ne mooy xam du xam. sëriñ bi lim foog ne mooy xam du xam. ñaan naa ko yàlla may na ñaan naa ko te yàlla may na ma ko. mooy mu mujjee ma jiite ma. mooy mu mujj fi jiite ma. jébbal ma Cheikh Ibrahim Niass. jébbal ma Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu. jant ngoog. jant ngoog. suux na nag tey. suux na nag tey. garab daanu na. garab daanu na. famille bii ñu bokk. famille bii ñu bokk. bu fekkee ne garab gi téeméeri bànqaas mu ne bu garab gi doonoon téeméeri bànqaas. juróom-ñaar fukki juróom-ñeent yëpp fàq na tey. juróom-ñaar fukki ak juróom na tey. su duhudoon ak sëriñ bi danaa wax ne. mu ne bu taxudoon ak sëriñ bi koon dana wax ne. damm damm bu xamul jang jang la. damm damm bu xamul jang loxo bu dammee ñu jang. loxo bu dammee ñu jang. tànk bu dammee ñu jang. tànk bu dammee ñu jang. doq gu tàkkalikoo. doq gu tàkkalikoo nag. bu teerut ci baay xamul yaakaar. bu teerut ca baay xamul yaakaar. kii moom. kii moom. yaakaar ju ma jonoot sëkk la. mu ne yaakaar ju ma jonoot sëkk la am. asalaamaaleykum wa Mike Mike Mike ak ah, kan ah kan ah defal ndànk defal ndànk asalaamaaleykum hmm? ñëw mbokk yi Modou mu ne asalaamaaleykum mu ngi nuyu ñëpp mu ngi nuyu ñëpp kilifa yëpp kilifa yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ kenn li xew nag li xew nag xew xew bu bette la xew xew bu bette la bu yéeme la bu yéeme la wante ñun. waaye ñun. am na lu ñu xam. am na luñ ñu xam na lu ñu jàngee. am na lu ñu jàngee lu ñu yaree. am na lu ñu yaree. na nu doxalee. ak nu ñuy doxalee. ba tax na li xew fii. ba tax na li xew fii. kanam mbooloo mi fi teew kanam mbooloo fi teew. kanam yu sell yii. kanam yu sell yii. ñu baax ñii. ñu baax ñii. ñu tedd ñii. ñu tedd ñii. fekkee daje bii. fekkee daje bii. mbokkam. mbokkam. amuñ lu ñu wax. amuñ lu ñu wax. lu mooy alhamdulilah rabbil alamin ndax. moom. moom. kenn la ci ñun. kenn la ci ñun. taalibe la comme niñ doonee ay taalibe comme niñ doonee taalibe léppam mu jox ko Baye mu jox ko Baye Niass jox ko Cheikh Mouhamadul Makki jox ko Cheikh Mouhamadul Makki Ibrahima bi muy ñëw fii moom Kéba bi muy ñëw fii moom Kéba ku tuuti la ku tuuti la fii la jàngee fii la jàngee. alquran. alquran fii la jàngee xam-xam. fii la jàngee xam-xam. fii la sampee kër. fii la sampee kër. lépp lu mu def fii la ko defee. lépp lu mu def fii ko defee. ba tax na ba na. ñu seedeel ko ne. ñu seedeel ko ne. doy na rek taalibe Baay la. doy na rek ne taalibe Baay. tijaan la. tijaan la. jullit la. jullit la. ku am ci moom yaakaar. ku ñu am ci moom yaakaar. rawatina nag. rawatina nag. bi nga xamee ne Cheikh Mouhamadoul Macky. bi nga xamee ne Cheikh Mouhamadoul Macky. ga xam ne moom la joxoon léppam. nga xam ne moom la joxoon léppam. mi ngi nii teew. mi ngi nii teew. dëgg dëgg. dëgg dëgg. bañ a ñàkk a wax. a a ay kaddu. ñii ay kaddu ñun fii. waaye ñun fii amuñ fi kaddu. amuñ fi kaddu ndax xam nañ. ndax xam nañ. Cheikh Mouhamadoul Macky. Cheikh Mouhamadoul Macky. ñu féete Kéba. diggante ma Kéba. ak fi ko Kéba féete woon ak fi ko Kéba féete. kon taalibe la woon ak sëriñam taalibe la woon ak taalibe ba dem na. taalibe ba dem na a a taalibe. ñu ngi lay jox ta dogal. lépp loo dogal lépp loo seede. loo seede luñ ci mën a wax daal ñun. loo liñ ci a wax ñun. xamoon nañ nañ ne jullit la. tiijaan la xaqan taalibe baay xaqan taalibe baay xaqan. waxuma la jàngale na ay xam-xam yu dul jeex. mu ne jàngale na ay xam-xam yu dul jeex. ak école arabe yu jeex. ak école arabe yu jeex. ñu yor daara joo xam yor na daara joo xam ne taar xale yaa ngi fay tari alquran tarbiya na ay sabab yu xale yu bëree bëree bëri ci tarbiya na ñu bëree bëree bëri loolu nag loolu nag li muy tegtale li muy tegtale mooy moom def na dawaaram mooy moom def na dawaaram ci hadara bi def na li ko waroon ci xadara bi def na li ko waroon ci xadara bi li sëriñ bi bëggoon ci moom li sëriñ bi bëggoon ci moom muy Cheikh Màkk nga doon ko jëmbat ci moom muy Cheikh Màkk doon ko jëmbat di ko ko ñaanal di ko ko ñaanal yéene ko ko yéene ko ko ñun ay mbokkam ñu ngi lay seedeel ñun ay mbokkam ñu ngi lay seedeel taxaw na ci nam gën a rafet taxaw na ci nam gën a rafet nam gën a baaxee nam gën a baaxee ba jox ko ba jox ko ba yitteem jeex ba yitteem jeex weeru koor bi c'est la première fois mu firi alquran. mu ne weeru koor wi ci la jëkk ñu déggee ne kon loolu mooy la doon desoon ci mission. kon ñu déggee ne looloo ko desoon ci mission. bi mu ko defee rek. bi mu ko defee rek yàlla indi na lim indi. yàlla indi na lim yal na ko yàlla yërëm. yal na ko yàlla yërëm xaaral ko àjjana salaamaaleykum. mbooloo mi sax màkki mu ne alhamdulilah salaamaaleykum. ñu ngi sant yàlla. moom mi nga xam ne moo xeeloo sant ci anam gu ne ci lu neex ak lu naqadi lépp moom la waaye jërëjëfe Mawlana Cheikh Ibrahim moom mi nga xam ne xamuñ sikk ne xalifa yonent bi la xamuñ sikk ne xalifa yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam xalifa Cheikh la radiyallahu anhu ñu tolloo jamono. ñun ñu ngi ñun ñi tolloo jamono. kon xam nañ ne. kon xam nañ ne. jamono yonent bi dara faatuñu ci. jamono yonent bi dara faatuñu ci. jamono Cheikh Ahmed Tidiane dara faatuñu ci. dara jamono Cheikh Ahmed Tidiane dara faatuñu ci. moom nag moo ñu jàngal ne. moom nag moo ñu jàngal ne. sant yàlla. sant yàlla. lum rëy rëy rëy. lum rëy rëy rëy. lu xeewal yi bari bari bari. soo waxee alhamdulilah. boo waxee alhamdulilah. joxe nga mbooleem xaaji cant yi. joxe nga cant kii lim bëggoon am na ko. kii nag lim bëggoon am na ko. Mawlana Cheikh Ibrahima la bëggoon. Mawlana Cheikh Ibrahima la bëggoon. firnde jaa ngi nii ku ko xamul sax xam na kii ku liggéeyal bàyyi la. firnde jaa nii ku ko xamul sax. xam ne kii ku liggéeyal bàyyi la radiyallahu anhu jamono ji nag lim ci doon def mu ne jamono ji nag lim ci doon def ci xidma taalibe yi ci xidma taalibe yi ak mbokki julitam yi ak mbokki julitam yi xajut sax ci dundam bi xajut sax ci dundam bi wax na ko léegi. wax na ko léegi. Modou Lo wax na ko léegi. nee na. nee na. fii la yang fii la jàngee. fii la jàngee. fii la yaroo. fii la yaroo. fii la tarbiyo. jàngale na ñu bëri. jàngal na ñu bëri. yar na ñu bëri. yar na ñu bëri. tarbiye na ñu bëri. tarbiye na ñu bëri. li mujjee def. li mujjee def. mooy firi alquran. mooy firi alquran. weeru koor wi. weeru koor wi. na ci li ko escanté sax mooy coono bi mu ne bokk na ci li ko escanté. mooy firi mi doon firi ci. weeru koor baax nag lu mu bëri bëri bëri mënta paase. mu ne yaa baax nag lu mu bëri bëri mënta paase yaa baax. alquran sax suy nettali ñu baax ñi. alquran sax buy nettali ñu baax ñi. ba wax ne kaana mina saalihiina. ba ne kaana mina saalihiina. laaya jooje kaste na mu ne laaya jooje kaste na kii nag ci saalihiina yi la bokk kii nag ci saalihiina yi la bokk doy na ñu wax ne jullit la doy na rek ñu wax ne jullit la doy na wax ne taalibe Cheikh Ahmad Tidiane doy na ñu wax ne taalibe Cheikh Ahmad Tidiane la doy na ñu wax ne taalibe Cheikh Ibrahima doy na ñu wax ne taalibe Cheikh Ibrahima la ndaxam suñu waxee taalibe Cheikh Ibrahima rek ndaxam kat bu ñu waxee ne taalibe Cheikh Ibrahima la yëpp dugg na ci yëpp dugg na ci ndax Baye Massa dafa kenn contrat lu mooy nga remplir ñaari yi ndax Baye Massa dafa kenn contrat lu mooy nga remplir yooyu yëpp mu wax xanaa dañ koy wax ngir bànneexu rek. xanaa kay dañ koy wax ngir bànneexu rek. waaye taalibe baay dëgg ngi waaye taalibe baay dëgg ngi. waa Medina dëgg ngi nii. waa Medina dëgg ngi. ku bokk ci fayda bi dëgg ngi nii. ku bokk ci fayda bi dëgg ngi. waxambaane woo xam ne dafa joxe ndawam yëpp. waxambaane woo xam ne dafa joxe ndawam lépp. ci xidma fayda Cheikh Ibrahim ci xidma fayda Cheikh Ibrahim. mi ngi nii mi ngi nii. lim def nag. lim def nag. buñ toogoon ko wax ba suba du jeex. buñ toogoon fii di ko wax ba suba it du jeex. waaye doy na. waaye doy na rek. sang yi teew. sang yi teew. su fekkoon ne xamuñ ko sax. mu ne bu fekkoon ne xamuñ ko sax. bu ci kenn bu ci kenn teewee rek. loolu mën na koo ramm ci jëm. Américain nag sakkaa nag mbooloo mi yonent bi mu ne fu ñeenti ñeent fukki yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne fu ñeent fukki julli nekk kon mu kuñ yàlla baa mu ne kuñ yàlla baa suñ ko bàyyee kooku suñ ko bàyyee dañ baal mboolem maamu yi dañ néew bi baal néew bi boole imaam ñii nag ñëpp ñuñ boole ci kaw ñuñ boole mu ne ñii nag ñuñ ba ci kaw ñuñ bola léegi kon dañuy sant yàlla rek kon kay dañuy sant yàlla alhamdulilah jataay bi yàgg na jataay bi yàgg na taajuma dafa xat. taajuma dafa xat. ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp. ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp. di leen sant yéen ñëpp. di leen sant yéen ñëpp. ci turu xalifa Cheikh Ahmed Tidiane. ci turu xalifa Cheikh Ahmed Tidiane. ak Cheikh Mouhamadul Mahi. ak Cheikh Mouhamadul Mahi. ak imaam Cheikh Tidiane Aliou Cissé. ak imaam Cheikh Tidiane Aliou Cissé. waa kër Seydi Aliou a ngi nii toog. waa kër Baye Serigne Aliou a ngi nii toog. waa kër Baye Alaaji Mo Seyna boo ngi nii toog. waa kër Baye Alaaji Mo Seyna boo ngi nii toog. waa kër Baye Mbaye a ngi nii toog. waa kër Baye Mbaye a ngi nii toog. suñ doon lim duñ dañuy wax ne rek ne pays pays bi yëpp. mu ne buñ doon lim daal nañ wax nañ ne pay bi yëpp a ngi nii teew loolu doy na sant yàlla loolu doy na sant yàlla ñu ngi wax alhamdulilah ñu ngi wax alhamdulilah rabbil alamin salaamaaleykum jërëjëf